ngeen jëf mbokk yi ñu amati mbétte contentement bu baax a baax ñi amati mbétte bu baax toog ak ki amati mooy a Guédiawaye toog ak Baye Omar mu ndaw Lirou Diane tey bu ñu nee safar Balla Gaye woote lépp mu dëgg mën ko ki nga xamante mooy ku tedd ki dañoo fa ne mbëri ay dof la mais duñu ay dof de duñu am joxañ ko Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rahima Fall ñoo ngi sant yàlla bu baax du sant yàlla bu baax comme que fekke waat nañ ko ci jàmm ak salaam te kenn manqué wul yàlla nañ ko yàgg fekkee te yàgg kaa def di leen ñaanal yéen ñëpp yéen yàlla defal leen jàmm ci seen liggéey bi ngeen nekk ndax man kuy wax lu rafet rek mbaa ngay jël ku kuy wax lu rafet rek daf may neex daf may kontaan ci loolu. dëgg déggoo ma uh-huh. de. kuy wax lu rafet. Uh-huh. wala ngay jël kuy wax luy rafet. dëgg la may neex. Uh-huh. moo ko moomoon waaye moomatu ko. ki ko moom léegi. Euh, mooy doomu Serigne Ndiaye bi. Makan at naar bi. Ah, ay saytaane lan léegi. Ah, ñaar ñooñu. waaw yéen ñi lépp tubaarikàlla macha allah léegi nekkatu leen ay seytaane ñu baax ngeen loolu rafet ngeen di jël lu baax ngeen di jël. yow sax euh, lu baax nga doon jël. Ah. waaye léeg-léeg ma gis na nga doxale waaye damay gis nga da ngay rafetal. waaw saxal ci rafetal bi. saxal ci rafetal bi. di kontaan ci yéen. Mm-hmm. ngeen fekk ma fii ci golf. Mm-hmm. kër Balla Gaye 2 son ma fekkee doon na ma accam son ma fekkee doon ma liiru jaan fii def ndax soon ma fekkee wala maa ngi sama kër ngeen ma fekk sama rakk la hmm. sama frère di kontaan ci yéen tam bu baax a baax di kontaan ci màggal gi ñu jub euh, dëgmal hmm. ñu nekk ci weeru safar hmm. te xam ngeen tey safar dafa bari lool. dëgg la ñëppay safar fi mu ne toogu ma mënu ma toog. dëgg ndax euh, bëgg naa teewal ñu ne léeg nga dégg nii noonu lii lu doo safar ay ree may jàpp dama leen xam ni man euh, euh, li ma war a def samay rek ma koy defal tey man su ma xewle woon may safar hmm. keneen di safar damay bàyyi sama safar dem ci safaram ndax bëgguma ku mer. dëgg parce que yaay mën maa nag. safar maam góor laa jóge ni maam góor taalibe sëñ Babacar góor yombul moo doon fa laa jóge ni waaw waaw fa laa jóge foofu nga ma a faa dem te waxoo ma ko waaw daaw ah, woon waaw euh, xam nga tey li mu tombé safar Balla Gaye bi moo tax fa laa jóge nii léegi léegi te Alioune tamit dafay safar tey waaw Balla mhm. lii mu def du na guléet kenn du na guléet taalibe sëriñ Touba la taalibe mhm. sëñ Bas Baara mhm. te yàgg na koo def tey mu tëral ñetti gàtt séddale lépp jaamu yàlla yi. def ay berndeel. def ay berndeel. kon nag nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. ku yemu ne ko jàkk te bañ koo piis. taalibe Serigne Touba la. dëgg la. taalibe Serigne Touba nag. soo ko fekkee ci yoonu Serigne Touba muy liggéeyal sëñ bi. ah ku yemu ne ko jàkk te bañ koo piis. waaw. nu mu mel sëñ bi nu mu am sëñ bi. ñun nunu mel sëñ be lu nu am sëñ bee kon nag sant yàlla yàlla nañ ko yàgg teewee te safoor yi di ñaanal safoor yi ne leen dañuy mm. daw ndànk dal ndànk ci dañoo jëm ci màggal mm. ci màggal gi nu jëm nag mm. ah dañoo dem pour sàkku ji ay ñaan ak ngërëm demuñu fa pour jaay taar demuñu fa pour dañoo dem pour sàkku ji ñaan dañoo war a dem pour toroxlu sooy dem Touba danga nga ko war a jàpp sooy dem Màkka sooy dem Màkka da ngay toroxlu sellal mm. sol euh, lu rafet lu simple troxlu mm-hmm. waaye nekk fay soli jasinière yeeg di sànceeku sol ku summeek jigéen ñee góor ji xool ci jongoma ji jo xale yu xale yu góor yi xale yu jigéen yi ñëpp laa wax mm-hmm. am na ñoo xam ne xale xamu jigéen ñoo xam dañuy dem pour pour jaayu ji mm-hmm. waaw am góor ñoo xam dañuy dem pour wuti soxna màggal moo leen yóbbu dëgg la suñu demee nañ toroxlu ga ngay gis kuy dem màggal di yóbbu ay wëlis waaw wëlis yére solo ko summi rek hmm. loolu baaxul <laughs> waa bu loolu baaxul abu <laughs> ah nan ko rafetal dañuy dem pour sàkku ci ñaan hmm. su tiwaawoon jotee ñu defee ko noonu njaasaan ñu defee ko noonu tey ba ñaseen ñu defee ko noonu kër maam limaamu bokkunta njaasaan hmm. cena ba laayeen lépp benn la ndax sëñ bi rek moo ñu ñor at yàlla ak yonante bi yàlla ak yonante ñu ñor at sëriñ xalifa diine yëpp yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér euh, sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdou Karim yàlla na fi yàgg te wér xalifa Baye Fall yi mhm. yàlla na fi yàgg te wér waaw mooy sunu sëriñ sëriñu Adama Seen fii la dëkk Géejawaay taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke at mhm. sa patron ba sëñ Fallou Seck Touba Xayra sëñ Abdou Karim loo koy naxee naxee ko sëñ Abdou Karim sëñ Fallou Seck loo koy naxee naxee ko sëñ at sëñ Adama Sène moom loo koy naxee naxee la sëñ Abdou Karim ah. maam Cheikh Rahima Fall waaw te da ngaa murit lool liiru ñun ay taalibe lañ saay li waaw mooy suñu cër ndax dañoo dañoo nekk ci wàccaay mm-hmm. waaw dañoo dañoo dañoo nekk ci dañoo nekk ci ay wàccaay wàccaayu màggal gi ñu nekk ci 18 safar mm-hmm. ñun dañuy toroxlu kenn dàq ñoo sol ay jasineer dëgg la de. waaye dañuy liggéeyal sëñ bi sànq da nga ma wax ne sànq dama ne a dafa am ko ma ne woon. liiru sa safar yow kañ la. waaw ma ne ko man su sama rakk yi suñu safar rek mel na safar naa ndax taaliba ndax man mii ni may gis nii. barki Cheikh Ahmadou Bamba. billaahi mm-hmm. wallaahi wa taalaahi. lu ma am ci màggal gi la jëm. Hmm? ñi nga xam ne mënuma maa lim seen tur maa leen di jox paasu màggal. barki Serigne Fallou Mbacké. billaahi wallaahi taala maa leen jox paasu màggal. waa léegi nag tey su yooyu may def noonu tey. Mm-hmm. tey su xale yi safara yi sama rakk yi di safar. mel ni maa safar. benn la rek te ni ñuy dem euh, Touba. dañuy dem pour liggéeyal sëñ bi. kon yàlla na nu yàlla defal jàmm. ci réew mi yàlla na fi jàmm sax. Mm-hmm. lu nu ñaan ci màggal gi. ak ci weeru safar bi yàlla na ko yàlla nangu. nañuy mm-hmm. wax lu rafet tey def lu rafet. di te jàmm. da bàyyi féewale yi. di toj ay dëkk di jaxase ay dëkk. du yoon loolu baaxul kenn war a toj ab dëkk Guédiawaye nag kenn mënu koo toj ah commencé na na ñaar xale yu fi nekk sant ak xeer de commencé na toj de hmm. moom yàqu moom léegi Guédiawaye kenn mënu koo toj Guédiawaye kenn mënu koo jaxase kenn mënu toj nag ci ñàgg la jëm waa gis nga dégg lu la wax hmm. samay rakk dañoo màgg hmm. man kilifa laa ah ñëpp sumay rakk lan am na yoo xam ne ay xale suñ koy wax wala ñu koy def dama leen di bàyyi ak xale yi waaw seen morom yi man waxuma benn xale bàyyi naa la ak yàlla barke Serigne Fallou Mbacké xale bu ma tooñ ma dajeek yow ñu jàkkaarloo nga tooñ ma ma summi sama yëre teg fa la ñu jàkkaarloo ñu jëflante barke Serigne Sallou man non non sama rek duñ ko nangu waaye man laax nii am naa fit boobu am naa noo comprendre nga am naa am naa fit bi am naa sañ-sañ du ma ragal géej waay ragal dëkku fii géejawaay ragal dëkku fi géejawaay ay ragal dëkku fi géejawaay ay jàmbaar a fi dëkk ay gaynde ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ay kilifa ñoo fi dëkk ay champion ñoo fi dëkk géejawaay il a tout tout il a tout géejawaay il a tout barki Sëriñ Bamba Mbak géejawaay il a tout away il a tout ah ndax tey soo dee géejawaay su dee champion yi fi fekk baax Balla Gaye ba muy am vingt cinq ans la ñu indi roi des arènes biir Guédiawaye ñu koy tiitaroo di ko ndamoo te jamono yooyu ki fi nekkoon koo ko wax mu ne ay conseil laa soxla di wutub xarit déedéet mu ñëw kooku quinze ans la toog daanu Balla ñëw daan ko tey euh, ñi fi nekk roi des arènes yëpp dañoo war a sant Balla Gaye ñi roi des arènes jaar seen loxo yëpp dañoo war a sant ndax tey jii su dul woon Balla a ah, ñoom est-ce que dinañ jot. duñ duñ si jot kon na dañ ko war a sant di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér soo nee Balla Gaye dama naan la kookoy chéri buri bàcc li bàyyi Mouhamed bàyyi Serigne Saliou mm. magi saa kees rakku liiru jaan kookoy Balla Gaye de empereur weeru des salaires kan mooy empereur bi loolu du question te am peut-être xam Balla Gaye de kaddu gi neex na xam fu ma dugg tuuti parce que moom mooy les monuments de Guédiawaye buñ gisee barki démb la da toog ci émission ba ñu laaj ko ci diggante ak Balla Gaye mu am communication ba mu si def mais nangu cee sori kon y a problème am na seen diggante ñoom loolu xam nga yéen abu du la wax saytaane nga ndax non non ndax dama la ko doon wax changé nga léegi ne ko too ko la da guerre noonu mu waxee noonu war a waxee ndax xamul tax mook Balla Gaye ñoo bokk seen Casamance. dama gisee ñoo bëggante ñu bokk seen farabara. Mhm. gis nga euh, diggante boobu ku ciy wax. dëgg la nga xam loo wax. Mhm. ndax euh, tey Balla Gaye laaj nañ ko ci ba laaj dégg nga lim wax la dëggee barki Demba Ndiaye laaj nañ ko ci dégg nga lim ci wax kon nag ku ciy wax na wax loo xam. problème amul problème amul. ñàkk waxtaan la rek. waaye problème amul. ñu ci wax nag. di jaxase. at di ñi nga xam dëkkuñu géejaway. sunu sañoon jàmm du am géejawaay kon nag j'arrête ñooñu laay waxal j'arrête ñi nga xam dëkkuñu géejawaay. ñan la ñu bootu ci ginnaaw. yàlla booy su ma bëgg loolu sa yoon nekku ci. bés bu wax seen tur jotee. man maa koy wax du yaa ma koy wax. non non arrête. est-ce que dégg nga ma la ma la wax Abu. yaa ngi may déglu Abu. ñi nga xam dëkkuñu géejaway bëgg a jaxase géejaway. loolu du fi amee du ma ko seetaan. man awma lu may tiit je peur pas barki sëriñ Bamba Mbakke je peur pas billahi wallahi tallahi loolu laa bëgg ñooñu je peur pa loolu laa bëgg loolu laa bëgg ñu arrêté ñooñu bëgg a jaxase géejaway googu ñu bëgg a jaxase géejaway nan ko bàyyi géejaway mënuñu ko jaxase mënuñu ko yàq tuuti nañ ci yàqu ci ndax ay kilifa dañ fee jaar dañ fee ñaan géejaway dañ koo léemu ah. barki sëriñ Bamba Mbakke da ngeen a xamul rek ku xam ay xale ngeen ay xale ngeen ma ne la loolu bis mu wax jotee dinaa ko wax damaa bëgg damaa bëgg Géejawaay ku yebu ne ko jàkk te bañ koo piis piis na xamul tax sëñ Abdou Karim fii la dëkkoon daara jaa ngi fi ay kilifa yu baax ñoo fi ñoo fi jaar ñoo fi ñaan kon nag nañ bàyyi affaire yu jaxase ñuy def diggante Lac de Guiers ak Balla Gaye ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk seen Casamance am na leen yoo xam du débat am na yoo xam du débat nan bàyyi si débat boobu chaque jour ñu ciy wax débat du ciw débat nan bàyyi débat boobu est-ce que Balla Gaye mooy kii déranger parce que saa bu daanee bari ci lamb loolu yàgg na parce que moom mooy leen ampleur waaw waaw mooy ampleur te déggoo wax Balla Gaye champion la ndaanaan la borom jom la Lac de champion la Lac de Guiers benn defet la fii ay champion dafa ana guy gi champion la lu ne def na ko fi ana Alioune Seye 2 ana ñoom Marley ana ñoom Amadou Sène Junior ana xale yooyu xoolal xale yi génn ana caatu Daouda Fall ana ñoom ñaabu ndax xale yi ñëw ñoom digal ñoom Youssou Ndour ñoom Gakko ñoom fils de Balla waaw am na combat non waaw am na turandoo non di di booy may ma tuuti booy euh, waaw bëri waaw loolu la xam non Moussa daana bëri woon na ba am ñetti combat ñetti victoire waaye dafa changé turam tuddee ma ko tuddee ma boppam day sànn voilà champion la waaw non non gis nga non waxul lu am gis nga ma xamal la benn affaire uh-huh. maa ngi nuyu sëñ Fallou Ndiaye raxma bu baax dëkk fii ci Guédiawaye maa ngi koy ziar bu baax sëñ Fallou maa ngi koy ziar bu baax euh, di di di nuyu sama papa sëñ Ibrahima ca Ndiassane sama papa sama xarit yàlla na ko fi yàlla yàggal sëñ Ibrahima Kunta ca Ndiassane Mohamed ca Pire ah. maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér Mohamed ca Saloum Mohamed ca Saloum maa ngi koy ziar Mohamed ca Saloum maa ngi koy ziar bu baax a baax donc nag maa ngi koy ziar bu baax comprendre nga sëñ Samba Ndour koy ziar sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñoom ñëpp maa ngi leen ziar bu baax a baax waaye gis nga li ma lay xamal te bariwul ñi nga xam ne dañoo jël décision di bëgg a jaxase géejaway mm. damaa bëgg ñu arrêté géejaway kenn mën koo jaxase fekkee tey dangaa ngaa bëree mm. ba wóoloo too sa bopp mm. xam ne làmb ji mënatu la neex ci yow nga bëgg yor sa micro commencé di wax non c'est que nag non du caaxaan dafay bari léegi gis ay xale yu ndaw war a liggéey war a dem entraîné ji chaque jour ñu nekk ci micro yi di wax loolu baaxul ba man may sax da may jéem a yàq léegi waaye man ñu maa yàq ndax ku ci mës a am bis di nga yëkkat sa téléphone wooma ma su ma amul lu ma la jox tamit dinaa la taxawu kon nag euh, nan may waxal man sama yu baax te bañ maa xasar man ñoom ñëpp laa yéen jàmm xale yëpp laa yéen a jàmm tey jii soo fi nekkee di xasar say mag wala say di mag say wax sa mag ay mag yu ñaaw nga am bis yëkkat sa téléphone woo ma est-ce la ñëwal du ma ko ñemee kenn daanu ci mbër waaw waaw waaw vraiment kenn daanu ci kenn bébé Elton combat bu mujj bii maa ko yóbbu isaat yàlla may ko ndam yàlla suturaal ma. may ko ndam waaw. su ma rakk la. Sekk musul am victoire. loo wa vraiment sama rakk la. mais moo génnee nag. waaw non gaañ nam la ñoom ñaari gaañ la. sama xarit ma koy jël. gaañ nam la xam nga damaa bëgg ñoom nan jox xale yi seen mag yi cër. nan jox seen mag yi cër. nan jox seen mag yi cër. ku ci bëgg a dem wala bëgg ñu dégg la. na nga jox sa mag wala sa bë bës yàgg na nga jox sa mag yi cër. loolu mooy àdduna. waaye nekk fii di wax lu ñaaw. ah loolu baaxul di xas sa mag ñi mm. di tuutal sa gox di yëkkati doon gox loolu baaxul fii ñëpp amay xarit mm. man mbëri champion yëpp samay xarit lan ñëpp ma jox cër mm. waaye ku ci bërek sama rak wala ngay bërek doomu géejaway ah. doo am dara mi ngi fi mi ngi ñëw léegi mi ngi ñëw léegi fii la fanaan mi ngi ñëw mi ngi ñëw léegi léegi mi ngi ñëw léegi gis nga ma xamale benn affaire yàlla na ni yàlla defal jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm sax nan bàyyi waxante yu ñaaw nan bàyyi waxante yu ñaaw gis nga weeru ñu nekk weeru safar la nañuy waxante yu baax nañ waxante yu baax te bàyyi waxante lu ñaaw àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex bugguma kuy téye sa gox di tuural sa gox di yëkkati goxu jàmbur noo mel sa goxo la ko def ndax soo amee bis ba nga ñëpp teewal la soo amee bis ba nga ñëpp teewal kon nag dee leen wax lu baax ñun drapeau bi moo ñu ñor zone bula bi moo ñu ñor zone bula moo ñu ñor gis nga xale yi ku ci am bis ni la taxawoo cinquante quatre ASC yi nekk biir Guédiawaye ku ci am bis ñu taxawu dooleel la kon nag nañuy waxantal rafet tabaay yàqante bi àdduna amul solo àdduna amul solo mais armée Guédiawaye dégg naa da ngeen koy waaw incha allah rabi dana jënd bàmmeel booy wuy ma rek su ma koy jëndoo nga non bu dugg foofu bu dugg foofu waaw waa waaw non non li wax nii ay jënd ba waaw yàlla na yéex xam nga non déglu ma waaw jar na sóor chaque jour ñoo chaque jour ñoo ngi koy sóor saa yu nu xëyee da nga koy sóor waaw dama lay wax saa yu nu xëyee ñoo ngi koy sóor bul ma jaxase na waaw dama lay wax rek saa yu nu fii fii ma toog rek fii ma toog rek mën naa jékki-jékki jóge fii booy rak ñaanal leen ma jàmm waaye te ñaanal leen ma jàmm amiin yaa rabbana yàlla defal jàmm géejawaay yàlla na fi jàmm sax bàyyi leen wax bu ñaaw bi booy liiru jaan kuy empereur géejawaay liiru jaan mais empereur liiru jaan mais liiru waxoo xanaa sa xol neexul waaw non non ah, loolu am nga am mi ngi lay tontu kay loolu am mi ngi lay tontu sa xol neexul maa ngi nuyu ñëpp du nuyu diaspora bépp képp kuy bëggee liiru jaan maa ngi lay ziar di la bëggee mooy Ndiaye directeur Serigne Malé maa ngi ko ñoom